mi nga xamante ne ndaanaan la ci làmb ñoom ñaari xale yi ku ci nekk wane na li mu waroon wane ci làmb gisaat nañ yeneen xale yoo xamante ne judduwaat nañ ci làmb waaye làmb am nañ ci ñoom yaakaar am nañ làmb ci cër kenn ki ñu dalal ko muy Bulldozer moom moo bëre ak Caatu Yaraax ñàkk ci combat bi ñu koy encouragé di ko jaajëfal di ko nuyu bàyyi ko mu nuyu mbokk internet yi su ko defee ñu weel waxtaan bi mbër maa ngi lay nuyu baax di la ziar. waaw salaamaaleykum. Hmm. Ba Djiri maa ngi nuyu bu baax. Hmm. di nuyu waaw Wassare Lamb yëpp. Hmm. Uh, ginnaaw bi ñu sant yàlla ñu ngi jóg si bi di sant suñ ñaari waajur bu baax. di sant waa Malika bi ñu jógee. waa Yëmbal département Kër Moussar bi yëpp nga xamante ni dañoo nekk suñu ginnaaw. di nuyu ñëpp di ziar ñëpp di nuyu ki nga xamante ni suma maam la. di suñu sëriñ muy Thierno Basir Tall. di nuyu bu baax a baax aussi suma maam Thierno. ma daani taal. Hmm. gis naa ñaani bu baax a baax baax waaye tamit maa ngi sant sëñ Sidi Mbacke Arxuraan. Hmm. bu baax a baax a baax. Hmm. ak ñëpp ñoo xamante ni ñu ngi woon sama ginnaaw rek di ma jàppale. ci combat bi. ci biir wax ji bi mu ne ñu ngi encouragé Bulldozer mi ñàkk. <laughs> dama tiit. <laughs> dama tiit. waaw loo tiital arbitre bi caatu yaraax la jox ndam. waaw pour l'instant caatu yaraax la joxoon ndam pour l'instant mais instant bi dugal nañu ko court ramb ji instant bi kenn xam ko fu mu féete parce que dañoo def ko court. kon instant yi verdict bi arbitre bi jox. kon ñun waruñu cee wax. déedéet non même neexee wax si loolu man amoo problème boobu. parce que arbitre bi. Mhm. caatu yarax la jox ndam. ok dañuy ñëw ci loolu. Mhm. Euh, dañuy ñëw ci journée stade bi. Mhm. mu gis Bulldozer bu ñëw. Bulldozer bu bëgg ndam. Bulldozer bu fonk bis bi lan la woon. waaw parce que journée bi dafa nekkoon journée bu mag nekk journée bu gay ku ne gis na ne Fallou Ndiaye combat mu si def yëpp. xam nga ay combat yëpp combat yu neex la. Hmm. premier combat ba si dernier combat ba si ñu ñi di garaaw combat bi. Hmm. yëpp ay combat yu neex la yëpp ay combat amateur la. Hmm. moo tax tey jii bu ñu dugg see arène nationale li fa yëpp bettuñu. gis nañ bu fees del teel fees nit ñi si si biti rek dañoo xam nga te sant yàlla bu baax la. mais ak combat bi dayo bi. gars yi ni ko doon waxee niñ ko doon préparé. boo paree jël en général monde gamb. du ma wax sax monde gamb mais à quatre vingt dix pour cent. ñu bari jël favori jox ko caatu yaraax. Hmm. waaw te làmb kenn mënu ko anagise te làmb mënoo nekk expert ba xam ko en 100 pour cent. kon da nga jàppoon ne favori bi ñu bari ci làmb dañ ko jox caatu yaraax. mais buñ ko joxee caatu yaraax lan moo tax ñu jox ko waaw côté posture musculature. Hmm. Ah, parce que am na posture parce que am na posture bu rafet. Hmm. yaa ngi dégg. mais bokkul. mais est-ce ñaari combat yu gaaw yi mujjee bëre. waaw mais combat yi gaaw. daan serpent moo tax ñu koy analyser daan wala xool zaal bawal. ak hmm. adversaire yooyu ak man bokkuñu. mbër yooyu ak man bokkuñu. Hmm. parce que combat yi mu doon bëre combat yi gaaw ñooñu fausse garde nga ñuy teg comme moom. Hmm. man garde normal gaay teg kon du bokk. kon kon pied bi nga ko tegal dafa dafa jur complication ci moom. da koy gêner. munu si munu si xeex ak yow. munu si bëree ak yow. yow pied boobu moom nga daan jiital sa lamb yëpp. sama combat yëpp man moom ngay jiital. mais nag damay bëri gauche damay bëgg ñaar yëpp. bi ngay jël avance bi xamoon nga ni boo xoolee samay combat simple yi may bëgg simple yëpp. Hmm. gauche gaay jiital man ñaari tànk lay bëri damay bëgg ñaari tànk damay bëgg ñaari loxo. mais ñaari tànk yi am na tànk bu ci gën a nekk sa fort. tànk dugaat mooy sama fort. mooy bi ngay teg ci ci ci bëre doole. waaw hmm. mooy sama fort te ñaari loxo yëpp dama si bëre. léegi ñu ñëw ci combat bi. arbitre bi woo sa adversaire simmeeku nga gis ko mu gis la. Hmm. arbitre bi siffle nga jàkkaarloo ñun caatu yarax wan ñu ginnaaw. mën mm-hmm. nga ñu expliquer nan nga bëree caatu yarax première action bi nga naan daan nga ko. Mm-hmm. lan moo ci xew. waaw mooy ak bi dafa sifflé. Mm-hmm. génn diggante man ak moom. ma may ko temps man tamit de combat. parce que man wóor na ma ne man du ma mbër boo xam ne ak bi day sifflé rek nga naan rek mooy song boo ko defee daanu. yaa nga def ak bi sifflé mu taxaw. man dama foogoon ak bi bu sifflé euh, day def tuuti rek ay cinq secondes yooyu daw ñëw. Hmm. loolu pagaroon naa ko. léegi far loolu jàll mu téye boppam si laa téye sama bopp nit tamit da am tactique de combat. Hmm. man sama tactique de combat moo nekkoon ma anière moom mu topp ma pas anière daw. Hmm. mais anière di déplacé wu pour mu ñëw pour ma li ma bëgg ma am ko. mu ñëw bu ñuy gëwtoo bu ajee wax a gauche heure bu heure bu ajee kii nu mu tudd waxu gauche pour me pour dóor. Mm-hmm. ma wàccee ko ak sama waxu góor kii ma wàccee ko sama waxu dugaat parce que ñaar ñaar waxam gauche ak sama waxu dugaat ma mm-hmm. koy wàccee bi ma ko wàccee nag bu baax man si laa avancé benn pas ci kanamam. Mm-hmm. pour mu mën a dóor dugaatam. parce que man bu dóoree dugaatam rek man damay mën a génnee coup bi damay mën a damay mën a esquiver coup bi ba pare dóor ko te man su ma ko dóoree day daal parce que wóor na ma ne maa ko dàq xeex xam nga man ak moom hmm. bokkuñu ci côté xeex man xeex chaque jour maa ngi si si club boxe laa nekk bu mag di nuyu sama maire vies yi hmm. ak waa Malika boxing club yëpp te de nee naa depuis bi may dugg bi may dugg école di bi ma am sept di dugg école boobu hmm. laa commencé woon di def aar ba léegi nii kon xeex moom yaakaar naa ne ku ma si woo rek yaa ngi may woo si si mi ngi mel ni nga woo naat si guuxum soow waaw ñu bëree man ak moom mu daw song ma moom moo daw dóor song ma dañoo songante ma daal ak benn wax bi daw wër ko. mais ci biir balaa nga koy bal boobu bi ngeen songantee rek ay uppercut mu ngi jolle ci suuf. waaw non moom moo dóor benn uppercut moom moytu uppercut bu romb. boobu dalul déedéet moom instant boobu dóor ma benn man maa ko dóor ñaar coup yu dal. yow yi nga dóor dal na. waaw ñaar mais moom mm-hmm. bi ñu jàppante man maa ko daw wër jege ko. Mm-hmm. man maa ko sës man maa jàpp si sengoor jàpp ma si ngembam si sengoor yi jàpp. Mm-hmm. ma jàpp si sengoor daal di koy sës. Mhm, micro bi bi ma ko sësee. bi ma ko sësee. Mhm. parce moom mi ngi doon soogaale ma tegul ko sées. moo tax mu pensé doogeem yëpp si kanam. waaw ah, mu indi la ci kanam. waaw non moom doogeem yëpp si kanam nga ko def. indi ma si kanam de. Mhm. bi ma xoolee xam ne parce que instant boobu bu yëkkati woon tuuti su ma ko tegee sées day tëdd jaaxal. parce que wóor man wóor na ma bi ñu xam naa ne carrément kii non su ma ko ëpp dooge moom ëpp ma dooge. xam nga si man instant boobu noonu man maa ko gën a man maa gën a taxuwaat man maa jël sama tànk dugaat daal koy dugal si ginnaaw tànkam moom si ginnaaw tànk góosam. pour mu mën hmm. a déclencher mbot. man ko hmm. forcer. bi mu déclencher parce que wóor na bu déclencher mbot bu ñu ajoo si kaw bu ñuy wàcc su ma ko mbaaree force boppam dina jiitu ma mbaar ko bopp bi jiitu boo xoolee ràmb ji loolu moom monde ràmb moo ko nangu. Hmm. dafa déclencher mbot ma mbaar ko si kaw aj ko. daal koy bës si kaw yaa ko bësee. bi muy dem ñëpp gis nañ ne boppam moo njëkk a ñëw boppam moo njëkk a dugg après man ma soog a ñëw mais nag arbitre nit kase ga te arbitre bi c'est le di du moom nee na ci action boobu. dafa kor sa loxo. Mhm. bi mu ko koree dafa jël loxoom. Mhm. dugal ko sa ngemb. Mhm. mais nee na jàppul bu baax ndax bu jàppoon bu la mbotee de sa dënd bi lay toog. jàppul sax sama ngemb saa boobu sax sama moom mu ngi mu ngi mel ni comme ku seeraanul combat bi. waaw loo xam kon duggul ci ngemb. déedéet waxam bu moom waxam bu jàppoon sama ngemb. Hmm. du ko may muy mbot. yaa ngi dégg. Hmm. kon ñun am nañ xam-xam bu bëri damay ko ci sama gox génnaat génnaat jàppul ñu jàkkaar ko. mais crochet bi mu crochet sa loxo. waaw dafa crochet sama gox. loolu hmm. mooy avantage bi. commerce bi mu commerce sama wax boobu. Hmm. moom mooy mën a may moom bu déclenché rek moom mbaar ko si kaw. mais li ma jaaxal mooy moom bi mu crochet sa loxo. Hmm. bi ngeen di dem yow maa ngi seen sa loxo mu ngi nekk ci kaw. mais yaa ngi jéem a tourner bopp bi xaw ma loo doon orienté. tourner mu bopp boobu dama ko doon mbaar. bi ma koy mbaar na sama loxo. Hmm. moo dal bopp bi tuuti. yaa ngi dégg. jël moom sa décision mais dama ko doon mbaar pour bës loxo bi. pour bës ko waaw pour bës ko loolu technique la. pour bës ko loolu boo ko bësee moom mbaggam day gën a weñu si suuf bu ko defee mbaggam ak boppam force ñooy tegoondoo. léegi man maa ngi si kaw ak sama benn loxo. teg bi ñu ñëwee man appuyé naa si suuf ba moom mu dal man ma soog a ñëw mais action dafa gaaw. action bi dafa gaaw waaw. action bi dafa gaaw moo tax arbitre bi kii mais ñëpp sax gis nañ ko. mais yow moment bi ngeen yéggee suuf yéen nan nga mën a xamee ni yow yaa daan. bi ñu yéggee suuf hmm. man laataa man maa ngi suivre action bi ñuy dem. Hmm. barki sagaatul faatee ak fi ma yàlla mu fi jóg. Hmm. maa ngi suivre mu dóor bopp bi nii ba pare man ma soog a egsi comprendre nga. mais mm-hmm. li ma la wax rek arbitre bi nit kese la. <coughs> te arbitre bi c'est le maître du terrain. Mm-hmm. yaa ngi dégg. Mm-hmm. moo tax bi gars yi dawee man pour man instant boobu nga am ci jeex na day yëgal sama loxo. moo tax bi gars yi dawee ñëw ñu génneewaat gars yi arbitre bi ne arbitre bi ñëw ba si man ne ma da ngeen di bëriwaat. te man ko loolu kii daan naa ko saay mënuma noonu man gisuma jël man ko ah, kon si nga waatal. mu ne sifflé waatal bi ngeen di sifflé waat yéen ñaar. Mhm. perto jàppoo ni ah kii de ñam naa ko première fois bi. am na lu ma sentir ci moom. waaw est-ce que su ma demee lii yu mel noonu. déedéet action boobu nan la demaatee sàmm dama taxawaat dëggal sama bopp. Mhm. yaa ngi dégg. Mhm. dama ko bëggoon a duma. te boo xoolee noonu nga demee. foofu boo seetaanaatee combat bi xeex bi yëpp dama damay àcc sama gàddu moom mu dóor dugaat yaa ngi dégg. man ma hmm. dóor ko kokose dugat. war hmm. ma dóor ko ku mu taxaw. Hmm. ba ni muy dawaatee song ba noonu si kaa ko bal daal di ati wax yi. mu déclenché mbot ñu ñaar ñëpp gëpp si suuf ku nekk teg sa benn waxo. daal di jugaat mu bëgg mu sëf mu poids di dóor pagaake. ma gëstu ko daal di ko yëkkatiwaat mu jum ñu jàppante. yaa ngi dégg. bi ñu jàppante noonu bëri di dogante ay hypercule. si kaa ko dóor hypercule hypercule bi mu ko mujjee dóor. sama sama Mm. nga bëtuma ko barki Seydina Mohamed du saltel jël saltel mm. lu ma jégam de mm. foofu daana moo ma fa jël bu weer mais sax dama gaañu si waxam moo tax mënatuma jël risque def yenn action yi sama wax mënatuma ko ngëpp yàlla seede na ko ci biir action ci action bi waaw parce que moom daf ne ma man bi ma ñëwee ci moom ci biir xeex bi moom dama dama ne ko daf ne ma yow bi nga ñëwee ci man di ma laaj ba xam dara méttiwu ma lan laa la wax ma ne ko dara mu ne ma bi nga demee ci Blizzard lu mu la ma ne ko nee dara météo mais ci biir comme ci biir action bi. Mhm. wala ci biir bëre bi. Mhm. ci nga ci nga am blessure ci loxo. Mhm. blessure bi lan la. dama ko dóor hypercule. Hmm. hypercule bi si jël loxo dal. ci jël ko dagee si jën ak sama loxo bi mi ngi nii bëggee gi neewi bi des na fii gàtt bëggee gi neewi neewi bi des na fii. mi ngi nii. Hmm. Hmm. sama ñaari baagam yi fii gis nga. bëggee gi gàtt nañ. des na tuuti. mais su guddi ki sax nga ko dégloo barki alxuraan du caaxaan. Mhm. dara jarul moom mooy fen mais nit da ngay gore te ñun suñu ngor ga gañ am. Mhm. dégg naa ko nag mu ne damay saltel victoire ay naa ko félicité nangam ak nangam. Mhm. non moom moom moo war a parce que man maa ko daan jël bu reer naññ. Rambour yàgg na si gi nit daan nit après ñu bëree keneen ki daan. ñu dem def ki njëkk daan dem def ko ko jox ko victoire am. yow bind nga recours. bind nañ recours déposé nañ def nañ lépp lu ñu war a def. kañ la résultat bi di génn. non xaw ma kan ngay génn loolu bàyyi naa ko sama wax manager. Hmm. Mara Ndiaye. déposé ko toog di xaar tey am nañ ci si yaakaar ne à cent pour cent ne tey CNG bi dinañ ñu jox suñu. nee na da ngaa def li la yoon may. mais hmm. da ngaa yàq sa xaalis boo ko tàggoon doo ko def. waa na loolu noonu moom seetaan na émission mais dafa perte boo déggee ni muy waxee nga xam ne kii psychologiquement dafa perturbé wu parce que xam na ne carrément daanu na mu ñun ay mbër lañ dañuy bëree ku nekk xam nga boo bi mu seeraat bi mu toogee pagato bi rek. Hmm. pagato bi bi mu fa toogee. Hmm. fekk ma fa biñ ko wanee vidéo bi. yaa ngi dégg kii ko porté hmm. da ne daanu nga xam naa sax loolu moo tax mu mere yenn kii yi comprendre ki ko reporté na ko daanu daf ko ne ah xoolal koo gis. lii de jëru moom. mu ne waaw waaye arbitre bi moo woote waat moom moo ko wax arbitre bi moo woote waat yaa ngi dégg arbitre sega mètre di teere moo woote waat. yaa ngi dégg fii man moom dañoo demandoo. amateur yëpp. Mhm. nee nañ ñu ci combat caatu yarax ak Bulldozer buñ ko bëggaatoon nii nii nii di nga bëriwaat moom. déedéet. lu tax lu may bëreeg moom te ma daan ko. ñoom mbër mun nga ko daan lundi mardi nga may ko jox joxuñu la victoire de moom lañ jox victoire. loolu moom moo génne ndam. loolu non incha allah bi dañuy am ndam. waaw moom moo génnee. incha allah bi dañuy am cest yi mënuñu. loo wax yow incha allah bi amoo victoire moom moo am ndam. incha allah bi drapeau bi dañ koy jëlee. loolu moom man maa la ko wax incha allah rabi drapeau bi dañ koy jëri parce que tey jii vide gi am monde làmb ñoo ko nangu monde bu si boppam ñoo nangu gi am ñoo nangu ne carrément daan naa ko te dama ko daan jël wu gar naan wax dëgg yàlla loolu nag yàgg na si kii te CNG bi. maa ngi di hmm. ñaan ngir yàlla. parce que ñoom ñoo ñoom ren dañoo woo gars si professionnalisme. Hmm. Hmm. kon tey jii pour man. Dakar. Hmm. ba Ziguinchor yi. Hmm. bëgg a dóor dañoo war a teg assistance vidéo. mu am VAR. waaw même bu fekkee recours bi da dafa jot sax même même même bu fekkee même bu fekkee recours bi. Hmm. da nga koy def si saasi. ñu jox la sa victoire wala ñu ne la mais li ma jaaxal nga fay li ma jaaxal sax loolu jar na ko. li ma jaaxal li traditionnel. moo gën a compliqué. te dañuy dem VAR léegi. te ci ci écran caméra yi lañ koy xool joxe résultat joxe résultat. pourquoi pas bëre bëre bi ñu am benn caméra bu nekk fële lay nekkee. bu sit amee ñu. génne ko loolu suñu papa Bira dina ci xel. da man bi ñu ma wooyee ne ma dix ngay dugal ci géew bi. Hmm. mais dix butéel dugal. bi ñu mënee heure cent ngay ñëw heure temps ngaa ñëw bu ñu mënee fii ngay yem fii ngay yem yaa ngi dégg. Hmm. foofu ngaa yem yaa ngi dégg. Hmm. dagg nañ ma parce que adversaire bi euh, kii naa ko touché naa ko foofu noonu ñetti yoon avant ñoo bëre. yaa ngi dégg tegul c'est normal ah ko dóor. non dóoruma ko. dama ko gomb gaal ko xam nga ko daal. waaw bien daa bañ laal. mais ñun dañ hmm. nangu. Hmm. parce que ay mbër lañ loolu amul daal luñ ciy contesté. xam nga loolu lañ ma dagg ak assurance yi ma fay yooyu noonu mais sant yàlla. mu ngi sant yàlla bëri ngaa bëri ngaa caatu yaraax Bulldozer fan la jëm. waa instant bii nag wax dëgg yàlla dañ ne woon caatu yaraax moo sës booy tey jii mbër bu def onze combats. Hmm. tey bu ma joxee victoire incha allah mu nekk sama dix victoire bu <laughs> waaye man Bulldozer bi laa bëgg kii boo gëm boppam joxee victoire non dëgg la. <laughs> Eh. mu nekk eh. dix mu nekk sama dixième victoire. Eh. benn défaite. te kooku kan ngay prouver si ay moromam dama jël karaaf. Mm-hmm. karaaf boo xam man ak Boy Bargny ak Bathie Seras 2 ak Mbagnick Kairé ñoo ko bokkoon. Mm-hmm. ma ñëw première journée bi Bathie Seras 2 moo ma daan. Mm-hmm. deuxième journée bi ma am Mbagnick Diouf Kairé daan ko. troisième journée bi ma dem final am Boy Bargny daan ko. jël karaaf bi. jóge fa ñu jox ma sama premier combat spécial arène nationale bi muy soog a man ak Paul bu daaru. Paul combat bu Paul bu daaru man ak moom ñu bëri combat bu métti ma daan ko. Mhm. jóge fa ñu jox ma alliance bi ma daan ko. grand combat. jóge fa ma ma amaat grand combat ma ne Big Za Mer. ah stade Iba Mar Diop. ma duma ko daan ko. jógewaat fa ñu ne gin bu yoof tey ma duma ko daan ko jógewaat fa ñu ne caatu yi ko wax ma duma ko daan <laughs> am. non dama daal bëgg daal bëgg naa ay coono. parce que ñëpp dañoo féetee parce que ñu bëri ñi analyser ñu bëri. Hmm. yaa ngi dégg. boo waxee ñu ne doog a ji ah, waaye Bulldozer am na bëre. waaye Bulldozer am na bëre waaye. Bulldozer am na bëre waaye Bulldozer am na bëre. yaa ngi kon maanaam ñi doon analyser làmb ñu ci bëri wóoluwuñ la woon. voilà mais dana caatu yaraax am na bëri am na dooge. mais loolu sa avantage la. moo tax mu moo tax. combat jox caatu yaraax favori yow da lay gën a dimbali combat bi combat bi aw si masse Hmm. mais man carrément xam naa ne aw ma si mais carrément xam naa ne aw ma waaye xam naa ne carrément ne am naa si doole. am nga ci parce que liggéey naa ko fekk nga ma saal may entraîné. Hmm. yaa ngi dégg. Hmm. du ma liggéey man man entraîné ma forme bu rafet. am na combat xamante ni bëgguma si forme bu rafet. doole laa soxla. te loolu laa liggéey ku xam ma ko xam ko ak din ak suuf su bari te ñun ay jàmbaar lañ ay man bëri mooy sama métier. Caatu Yaraax am na doole bi ngeen jàppante. bi ngeen ne runkum daje. diis na mais maa ko gën a dëgër. Hmm. waaw man macha allah diis na mais man maa ko gën a dëgër te ëpp ma doole. ëpp la doole ëpp poids. mais ëpp la ko ëpp loolu sax ñuy xam nañ ne. poids ak doole parce bi ñu dagantee bi ñu dagantee ku ci ku suivre bi ñu dagantee ak moom. Hmm. xool benn instant bu may songoon nu ma dugg sama ñaari loxo daal koy bal mu dafa tëb. yaa ngi dégg. Hmm. ma ko mu déclenché mbot ñu bàyyante ñu ëpp noonu ci suuf loolu noonu su ma ko ëpp doon doole du ma ko def moom su ma ëppoon doole du def noonu. waaye instant bi nag comme que jeexal naa samay morom macha allah. Hmm. ngir yàlla ñaan ñi dama ngeen di ñaan chance. <laughs> bi ngir yàlla ngay xam ne fi mu jëm bëri ak a ñëw fuy waa yeegale non non non damay ñaan chance. yeegale buñ ma ko mayee baax du ñaan boromam de. dama koy wax dama koy wax ñett nga gaaga dama koy wax ñaar. waaw ah. ñaar ñii buñ ma mayee chance ma jël. kala kala Zarko su ma mayee chance bëgg naa <laughs> Modou Anta. gis nga ñooñu. Zarko mel bu garaayo. Modou Anta su ma mayee sens. gis nga du def mbay guy gi bari dama ngeen di ñaan sens. non man dama bay bulldozer du mbay du mbay guy gi. <laughs> booy mais dama wax non dama nga gàmmu la booy yabal. gis nga gis nga mbagg boo gis. boo xamee dënd ba magasin boo xamee sa nga si fekk ak ay pël fute yi jaay. wolof wax loolu rek moo ma ci gën a métti. waaw koo wax loolu la lay wax. waaw mais programme bi mooy. Mhm. ñun dafa am fu ñu teg suñu bët. man tey jii mooy li may wax rek gis nga man mhm. yaakaaruma si gàmbu. Hmm. gàmbu moo yaakaar si man. man dama bokk si mbër yi nga xamante ni moo ñu fi war a ñoom Balla Gaye Modou Lo six personnes yi nga xam ne ñoo fi tëdd di rek ay millions depuis boobu ba tey. Hmm. yaa ngi dégg. nangu ñoo may chance kenn. yaa ngi dégg. Uh-huh. da ngay gis chaque deux ans wala trois ans ngay gis benn booy bu fëgg. yaa ngi dégg dugg seen biir. yaa ngi dégg te des fois sax ñu xeexoo mu mu wàccaat naan noo booy nga war a nangam naa man dama bokk si mbër yi nga xamante ni ñooñu da ngeen fay war a jëgee parce que damay fekk. ñu toll si si si benn niveau boo xamante ni. Hmm. dama ngeen fay fekk jege ngeen fa force force. laajal beneen mbër Zarko moom du sa morom. su ma fa jugee am na mbër boo xamante ni kooku su ma. Zarko du sa morom neel waaw. Zarko du tus. Zarko men barki Arxogaani Kégé bu ñu dajewoon man ak moom nga xam ne Zarko du dara. gis nga keroog état bi mu indil mbay man ak moom bu ñu woon bu ñu songoo man ak moom bu ñu taxawoon xeex songoo. barki Seydina Mohamed gaal ko waatal fii gaal ko waxee nga xam ne Zarko du tus Modou Anta noonu bu ñu dajoon ba mu may ma sax man ak moom ñu daje. Modou Anta la tam booy yab ko. di nga xam ne oh, di nga xam ne Modou Anta. caatu yaraax laaj na ko bulldozer Modou Anta daal nooy neex ngeen ko jàppee. jàppee ñu ko Modou Anta man man de jàppee ma ko nooy neex champion ga mais. man de Thiès gi Modou Anta. man daa sama bopp gaa xam. ngir yàgg na ma may chance. su su bëggee su ma mënta may tamit amul problème. Hmm. parce que daaw am na mbër yu ma fi waxoon am na mbër yoo xamante ni daaw. doon naa ngeen laaj combat Modou Anta boo ko laajee mu ne dama ci laaj goote nag. déglu ma rek ma wax ga. Modou Anta laa boo ko laajee Modou Anta laa soxla boo demoon ci moom mu ne la léegi ba ñu maa bëri yow ci laay gote. laay gote gaw si gàmbur. laay gote man maa ko gaw si gàmbur. kon Modou Anta bu moom Thiès doo ko ma ko bañu moom mënu maa bañ te moom xam nga programme mbër yooyu ay mbëru ay ambulance yooyu mooy maanaam daa génn foofu mooy maanaam mooy maanaam Dakar nga ngeen di déggee tey mu ñëw ay mbër lañ yoo xamante ni nga bëreeg ñoom amul benn avantage xam nga tax hmm. bu ñëwee bëggee Dakar ah. Mhm. une semaine seen coow day jeex ñu demaat une semaine nga ngeen di wone après seen coow jeex ñu dem. yaa ngi dégg. Mhm. kon ñooñu bëgg ak ñoom sax amul avantage mais dina la wax kenn koo xamante ni. Mhm. man su ma ko bañul. moom mënumaa bañ ci gàmb. muy kan Modou Dia bu Yoff xam nga ki tax. Modou Dia. waaw xam nga ki tax. waaye defet waay defet waay. noo xam nga ki tax bu ci ab defet laaj la Modou Dia ci defet man man damaa prouvé. macha allah caatu booy bambara ko mujjee daan. waaw mais macha allah dama prouvé. yaa ngi dégg. Mhm. xam nga li tax ma ne su ma ko bañu mënu maa bañ. Mhm. gin bu yof bi muy bëreeg moom moom moo jël bi moom. moom moo jël. moom moo forcé gin bi na ko jëgal nga daan booy bi. moom si boppam moo encaissé xaalis bi si Matar Ndiaye avance bi. yaa ngi dégg. Mhm. te jour bi ñëwee stade bi ma daanee gin bu yof jooy metti nga jooy foofu. yaa ngi dégg léegi jooy yi nga tegoon génn bu yoof ba moom mu jooy jooy yooyu nga ko bëgg a beral jooy boppam dama ko bëgg beral jooy boppam à part moom na ñëw faaw mu ñëw ñu bëree <laughs> non ah, gis nga gàmb nañ ko teg si yoon <laughs> xale yi ah. na ngeen may chance hmm. ñu génn def fayee ko si millions yi parce que kat hmm. na foo xamante ne nii hmm. man ñun ba léegi ñu ñooy fay gàmb ba léegi gàmb fay mais dafa jot gàmb fay ñu combat bi ci à peu près boo ci doon xayma li nga ci def ci xaalis ñaata lay toll. barki sakaatul faatee mënu ma la wax ñaata ko parce que def nañ ci ay voyage yu bëri yu ne def nañ ko si. combat bi combat bi dañ see sonn cinq mois. te man avant combat bi yaa ngi dégg maa ngi préparé boo xamante ne pour sama bopp. parce que instant mm. ma ban mbër yaa ngi dégg. Mm-hmm. ba combat bi ni mu taxawee combat benn fan nga taxaw moom mi ngi doon war naan daf ma dama dama koo tëkk. Mm-hmm. combat bi suba gi lañ wax ma caatu yaka. Mm-hmm. Mata Ndiaye man Mata Ndiaye bi mu woowee dama ko wax waaye jëga avance bi. léegi yow combat boo ñu doon xayma. ci ñaata million nga ci def mën na un million. no non ëpp na ko. luy diggante diggante diggante diggante trois jours. yi des ci combat bi. Hmm. barki sagatul faatee gi ñu ci def. na huit cent mille. wala ay sept cent cinquante trois jours ci combat bi. trois jours yi des ci combat waxuma kaan nag avant. ci lan mystique. non si lépp. combat bi kon boo ko doon xayma ci mystique li nga ci def mat na trois millions. non mystique moom man dama am ay mbokk. gis nga non mais xayma sarax yeeg lamb moom sarax la ak mystique ak voyage beeg yëpp ci ci lamb ji la bokk. ëpp na. ëpp na 3 millions. non mënu ma wax ñaata ga. te mënu ma ko estimer parce que. mais mën ngaa xalaat ni diggante un un cinq xam na su ma toogee lu ma la wax fenn ma toogee naa ay un cinq cent ay nangam nangam rek mën naa na def na ma si def def na na ma si def xam naa ne mun mun munumaa toog di ko wax. yenn saa yi nga yéeg ana salle de musculation yi nga dem. Mhm. léegi lan moo tax nga jël plus de somme yenn somme yi. Mhm. di ko def ci làmb ji te liñ la fay ñu fay la xaalis nga yëkkate lu ëpp loolu defaat ko ci làmb. gis nga gàmb mu wax nga benn affaire. pour hmm. gars yi mënut a xam. entraînement. Hmm. mooy hmm. cent pour cent. si côté am. aada cent pour cent si côté am. su ma nee aada ak cosaan mooy mystique. cent pour cent la ngay gis si làmb. kon ñu naan mystique. waaw deux pour cent la ci làmb. da nga koy ñoo xamul rek làmb mystique cent pour cent nga si côté ambiance si mm. làmb. Mm. mën géew cent pour cent nga si côté bu ci nekk bokkut ak sa morom waaw bu si nekk bokkut ak sa morom boo defee lii bàyyi lii boo ñëwee mu feeñ. mystique jàpp na la ci làmb ji. si làmb jan déedéet man sama morom. sa adversaire sentir nga ni mystique jàpp na. man déedéet. kon yéen ñaar ñëpp mystique li ngeen ci def ci xaalis yëpp. tàbbi na géej man boog sentiru ma ko. te moom it sentiru ko. wóor wóoru mais man moom nee na ma sentirul mystique. jàpp na waaw man sentiru ma benn mystique. wax dëgg yàlla man dëggagaluma loolu man ay mystique mooy lan man déggoo ma de ak ko gëm. mais am na xale mais dama ne sama moromu mbër. Mhm. gëw ma sama moromu mbër boo xamante ni mën ngaa taxaw ñëw naan danga may jàpp si mystique. mais am na xale bu yee parce que man mii damay jug sama bopp. Mm-hmm. mais am na xale bu yëg keroog mm-hmm. ki bëre spécial bi. Mm-hmm. Euh, muy Ada Fass. waaw yéen ñaar kan moo ko ci bëgg. Ada Fass moom yéeg la doon dox yaag Ada Fass dinañ. champion nga. booy boobu du ma ko booy sax sama morom nga. <laughs> Ah, eh, man kenn loolu ma jaaxal booy boobu ndaanaan <laughs> war boobu Ada boobu sax booy boobu <laughs> mun naa ko booy boobu. parce que ah. mun naa ko wax ay morom ga man xam naa sax waruma ko booy sax parce moom moomay mag. non bàyyi li nga Ada Fass boo xoolee. non séeréer du caaxaan séeréer du caaxaan Bulldozer 95 ga. te booy yëpp ku si wàññiwul wax nga asam dëgg. biir gars yi wax barki Saraatul Faate fi ma toog yàlla mu fi jóg 1995 laa jóg. man de ma màggee bari bari la. barki xaga baa jege ba léegi maa ngi ci réew. baa jege. ah ah, ah baa jege ak fi ma toog yàlla mu fi jóg. dëgg la 1995 laa. Hmm. dëgg la yaa ngi dégg ñun ay xale yu ndaw lañ. Hmm. amaguñ ci làmb mm-hmm. ñàkkaguñ ci dara tamit mm-hmm. comprendre nga mm-hmm. booy yooyu mën ak ñoom ay morom gañ wala ñu mag ma wala boog bu fekkee maa mag tamit ay benn at lañ la woon léegi jox ah ay millions yu dul jeex ah, non non loolu moom des fois mbër laaj kase yoo xam ne waaw adversaire bi daan daf maa daw parce que laaj na lu dul yoon waaw parce que xam nga lu tax damaa daan booy yëpp xam nga am na tak am na nag làmb yoo xamante ni yaa ngi dégg maanaam tey jii comme ça tey ji am na gàmb yoo xamante heure bi mënuñu ko see fay xaalis. Mm-hmm. te booy boobu champion ga am na tamit yeneen booy yu dul moom sax ay ay champion ga ñu ngi si yoon bi mën ñoo daje man nag ñoom ëllëg te foofu ngay ëppee xaalis. Mm-hmm. yaa ngi dégg. Mm-hmm. heure bi promoteur bu ko si woo di ko si fay bi war te gàmb ji te te te combat ne combat soog yoo xamante ne gàmb soxla. kon yow da gis ne combat bi combat buy neex amateur la mais du moment bi du bàyyi ba ci kanam mënul nekk moment bi xel nangu na ko. waaw loolu nangul nga ma ko. Mm-hmm. mënul nekk munoo bi. Mm-hmm. parce que tey promoteur duñu ma si fay ku si fay nag xaalis bu bu bëri. Mm. ku si fay ku ma si fay xaalis bu bëri. ku la ci fay lu la jaral. waaw lu ma ko jaral. Mm. mun naa bëreeg moom. yaa ngi dégg. Mm. mais bu dul loolu. mais booy soo bëggee ñoom tamit boo leen daanee dañ naan xamoon nañ ko. non yow doo fi daan kenn ñoo xamoon nga ko bàyyi say ngay def yow yaa xam ak say supporters. <laughs> non non <laughs> ah, non non non sérieux du caaxaan. sérieux nag du caaxaan. mais tey jii dama koy wax benn affaire tey jii ci kanam nga. yaa ngi dégg ñun tey jii toog nañ ci gàmb loo xamante ni war nañ cee am wala nañoo geg mais ba géeg ñi ngi fay gàmb tey nag war nañoo toll foo xamante ni instant bi gàmb moo ñu war a fay ma du ma fi jëgaat benn combat boo xamante ni man maay jël sama xaalis di si dugay sama bopp yaa ngi dégg gàmb moo may fay ma def si maa lay jaajëfal bu baax jaajëfal bëgg naa bu baax a baax waaw di nuyu waa Malika waa Yëmbal Nord Yëmbal Sud waa Kër Massar waa Jaxaay buun benn te tëri marin alu bàyyi ñaax waa Éthiopie. waa hmm. quartier Basse quartier Dioga ñëpp maa ngi di nuyu di sant. Hmm. gis naa taxawaay bi. Hmm. di nuyu suma mbokk sumay mbokk yi nga xamante ni ñoo nekk Guinée. nuyu waa Sendini di nuyu waa Libéria bu baax a baax a baax. di nuyu aussi suma mag yi nga xamante ni dañ taxaw di ma jàppale. moom may xaalis. di nuyu waa Kolda bu baax a baax a baax ak waa Gambie. di nuyu village yi nga xamante ni. ñëpp dañoo nekk sama ginnaaw. du ma mhm. jàppale. maa ngi di nuyu tamit waa parcelle. Mhm. waa parcelle am seen fay ku si mel ni suma xarit suma grand am di. Mhm. am di Moustapha Gueye. maa ngi koy nuyu bu baax a baax a baax di nuyu waa kafe gi su ma nee café gi rek. di gëm naa Assane yaa Sagam gëm naa Bouba gëm naa ñeneen ñi fa nekk ñëpp. maa ngi di nuyu di nuyu sama njaago or bi di nuyu booy ñoom Ameth Top. booy yi ba waa Asiko Barama yi. keroog gis naa taxaw bi Mm-hmm. yaa ngi dégg maa ngi nuyu bu baax Pape Diagne Pape Diagne maa ngi koy nuyu bu baax di nuyu Bamba Sock. Mm-hmm. di nuyu oh, suma papa Ndiogu Saw. di mm-hmm. nuyu Père Libaas Mbay di nuyu suma grand boo xamante ni muy Gam Tooro. xamante ni ñëpp xam nañ ko. Gam Tooro waaw yàlla dogal caabi féete ko ginnaaw. ndeysaan. Euh, ñu nekkoon ma ak moom. di ànd chaque jour. di bokk sax fanaan chaque jour. te yàlla féete ko ginnaaw di ko ñaan ak yàlla. natt yooyu ñu teggil ko ko. di wax waa Marika nag am nañ combat bii. mairie Malika. Hmm. gisuñu gën gisuñu teg seen tànk c'est parce que. Hmm. élection yi passé dama àndoon ak Ndiogou Sow. moo hmm. tax sama combat kenn jàppale ñu. si ñoom même Ndiogou Sow moo ñu fa ak ki nga xamante ni mooy Libaas Mbaye. mais nag sant yàlla Ndiogou Sow moom daa ñàkk. waaw mais nag sant yàlla. bi ngay ànd ak moom xamoon nga ni lii mën na la ci fekk. bien sûr xam nga li tax. nit ku nekk ak sa ngor. nit da ngay gore. nit doo ànd ak yow. tey Ndiogou Sow du ñu ànd mu wóolu ma si léppam. Mm-hmm. mu wóolu ma si lu bari. Mm-hmm. yaa ngi dégg. Mm-hmm. di ma dimbali si lu bari di ma conseiller si lu bari. yaa ngi dégg. mu dem ba toll si niveau bu may taxaw di ko seetaan bu boobaa rek ma ñàkk ngor. yaa ngi dégg mais nag sant yàlla. àdduna moom. du waaye def rek noonu la ñu jàppee ko noonu. waaw sant yàlla bu baax affaire ñu ngi suñu kanam. xam nga yàlla mën naa dugal leneen sant yàlla na. yaa ngi leen di loxo pour ñu ñoo xam ne say seen doom. man tàllu may waxo de xam maire maire yëpp am budget sport. Mhm. force doomu dëkk bi bu duggee bu jugee si dëkk bi di dem di compétir si wàllu sport. si mhm. budget sport boobu dañ ko say war jox. loolu par force la. mais bu la ci joxul nag loo ko ci man a fekk. sama dara. kon tàllal leen tàllal leen loxo rek ñu ñoo jàppale. ma si topp non non pas tàllal loxo. du ma si mhm. kenn parce que man ñoom dew si kenn. yaa mais booy ñoo fa doon dem. affaire yooyu noonu mais nag ñun dañ faa dem en tant que comme comme comme def suñu wareef. dem fa. pour wax ngeen nañ ci jàpp. parce que c'est normal. dëgg la yaa ngi dégg parce que ñun hmm. dëkk bi nga ñuy teewal. Hmm. yaa ngi dégg nag hmm. sant yàlla bu baax alhamdulilah ñu ngi sant yàlla di jugi si yeneen bi di sant suñu ñaari waajur di sant waa Malika ñëpp nag bàyyi ñu kenn waaw di di di gërëm bu baax tamit suñu chef de quartier muy ma soose Njaay di ko nuyu bu baax a baax di nuyu suma yaay Magam Njaay ñoom matu ñoom may jaaga ñoom ñëpp di nuyu sama boy sama mafia bi waa xol sedd. Hmm. waa café gi Assane Mbaye. Hmm. gaa yëpp maa ngi di jërëjëf ñu ngi koy jaajëfal bu baax moom Bulldozer xale la boo xamante ni vraiment làmba am nañ ci moom yaakaar te mu ngi wane boppam ñu koy jaajëfal bu baax di jaajëfal commandant Ndoye bu cité alin Sow di ko jaajëfal bu baax di ko wax moom commandant le respect kontaan naa ci yow di la ñaanal jàmm.